dani sama waay da jamiñal jaara busuk wala ma sebi jaara jurujub salaamaaleykum mbokk yéen ñi saafoo seetaan Click Dakar 221 nee na leen saa su ne Dakar 221 euh, askan fi nekkal waaye tey nag ñu dalal koo xam ne duñ ko présenté Sénégal àdduna soxna Aida suñu Serigne Saliou la grande vente waaye soxna Aida Saliou yaay Wally Ballago Seck waaye soxna Aida Saliou maman de tous les lions euh, maman tey dañ lay bàyyi rek nga nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi tey tey nag dañ doon ñëwee ci waxtaan bi ay faj ay seet ak yooyu mais te ni ñëw beneen beneen beneen lay ñëwee te yow dañ lay bàyyi nga nuyoo rek ñu dugg ci xuus ci waxtaan maman waa salaamaaleykum àdduna war wërngël képp di nuyu international ndax Soxna Aida Saliou international la ndax xol boo ubbi rek bëgg na Soxna Aida maa ngi ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di nuyu sama doom Wally Ballago Seck waaye di nuyu askanu Sénégal képp. macha allah maman euh, nuyoo bi am na solo trop trop maman mais tey maman li ñu dugg dëgg ci xiif bi dëgg-dëgg mooy li nga xam ne moo saxal askan bi muy politique bi gis nañ ne dëkk bi jaxasoo na tey ki nga xam ne mu di Ousmane Sonko ça fait deux mois mu ngi ci biir kaso bi mais gis nañ ne boobu léegi dara andul keroog ñuy doxal dañ koy atte ñu mujj ajaat li nga xam ne moo di atte bi mais ñu gisaat benn message bu mu def ne euh, jiital nañ ki nga xam ne moo di Diomaye Faye pour euh, Pastef ñëw parrainer ko en tant que seetkat en tant que git loo xam ne il a du ko keneen du ko gis tey Diomaye Faye seetuma ko. Hmm? seetuma ko mais dafa mel da ngaa bàyyi seet léegi wala nu bàyyiwuma seet de laa gën a mën a seet. mais seetuma loolu parce que sama rang yi su ma jëlee xaalis euh, nit ñi dañ ma soxla international la te pour léegi nga jot ma man benn nit laa. te pour nga jot ma. idaani boo ñëwee si kër gi xam ne liggéey bi. gën na am yeesal dëgg la gis naa loolu bi gën boo duggee ci biir kër gi. Mhm. gën na am yeesal. man gën naa ci allah wax dëgg yàlla lépp lu waay nekk te sunu borom xëy na dimbali ko ci mu barkeel mhm. day romb dimension mhm. te ñaanu sénégalais dal na ma mhm. ba tax na maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi alatu wasalaam di ma xam ne ay jël naa sax leen ba pare pour ma xoolal leen day xaw a bëri say client waaw samay client euh, parce que dañ may xaar te bi day xat te daanaka maa ngi jéggalu ci loolu mhm. waaw ndax boo bëggee boole GP yi bëgg a boole say client bëgg a boole ñi lay fekk sa kër boole boole international bi ñu nekk ci réew mu sori mhm. di la xalaat ñi nga xam dañoo dem ci gaal yi nekk ci camp yi du gunu mhm. ak seen i yaay ak seen i mbokk te ñëpp ngay yëpp yaa leen war a seetal yaa leen war a a a xam nag sa yoon nekku ci wala seetloowul lu man du ma seetlu ma seetloo wut mais ne sa yoon nekku ci en tant Sénégal seetuma ko seetuma ko dox loolu fi da nga doon génn génn génn ay sarax nee nañ def sarax nangam te gis nañ nga génn ay sarax nan nga gis ci 2024 ak. en détail mais mais bu ma ci laajee 2024 bu xëy na dinaa am lu ma ci mën a wax wala ma am lu ma ci dul mën a wax waaye da nga ni ma ndax seet nga nan jumaati fay. waaw waaw nax seet nga ci toog may la seetu ma ko parce que kenn demandé wu ma ko taman maa ngi doog a dégg sax coow yooyu. ok maman léegi euh, li ñu wax mooy 2024 euh, euh, sarax yi man xam naa ne lu xeetu ci Sonko rek sawroo ci. Diomaye Faye non ñu waxtaan moment en fait euh, xam naa ne sawaroo ci mais 2024 lan nga gis exemple ci candidat yi. waaw man na képp ku yeewoo Sénégal doon doomi réewu Sénégal di développer Sénégal rek Soxna Aïda Saliou am na ci yow cofeel mais day fekk ne mhm. dafa am loo xam ne sama domaine la mhm. su ma ci tolloo ba gis ko wala loo xam ne dafa nar defar réew mi wala lu nar a nekk ci réew mi nekk leneen su ma ci amee kàddu dinaa ko ci sànni waaye dina rafet dina ànd ak respect dina ànd ak yar waaye Sonko ak ñëpp laa yemale mhm. man képp ku fi yeewu ci réewum Sénégal rek man nga fi yeewoo mhm. parce que seen micro bi ku ko moytuwul idaani bëgg nga ma wax ci nga dugal ma ci kàmb waaye man kenn du ma dugal ci kàmb non du dugal ci kàmb non ba ma nee ba ma nee waxu diw sawaroo parce que man pour population bi la parce que man réew mi ku ko bëgg ak ku koy wut ak ku ko am ak dem te doo ci boole. non mais boo ma la sawaroo ci Ousmane parce que ku nekk xam na ne sa waxin ñun ay Sénégal lañ boo waxee dañuy dégg dañuy xam ne yow mii ah APR nga nañ ko wax te dee. non léegi moom APR laa. Ah, mu ngi nag maa ngi dem ah, ba fekk si ma kon maman. waaw parce que foofu foofu du visé rek. non non non loo xool ngay gis. parce que du visé mais Ida ni loolu moo am. Ah, bul vraiment amul taw merci beaucoup. affaire yi jàllal feneen da nga ne gaynde nga. non jàllal feneen mais jàllal feneen. da nga ne gaynde nga Ida ni dama la bëgg a xamal tuuti. non dañuy waxtaan tuuti waaw dama ne. Euh, tooñ dafa bokkul ci jukkoy doomu aadama. tooñ mooy lan. tooñ mooy comme si que nga ñëw rek laajoo ma ci 18 doomu aadama wala xooluma ko man ndeyu gi réew laa national la am na xale yoo xam ñu ngi ci Ousmane Sonko sama kër gi am na sama doom yoo xam maa leen jur amaana bëgg nañ Ousmane Sonko amaana am na xale yu may fréquenté bëgg nañ Ousmane Sonko am na ñii nga xam ne sama yem soppe lañu Macky lañu bëgg am na ñi nga xam ne kii lañu Moustapha Diop lañu bëgg am na ñu kii yoo xam ne man maa ngi ne Moustapha Diop sama mbokku taalibe la mhm. dama ko bëgg yamalewu ma ko lu yàlla bind fa nag je t'aime Mhm. beaucoup parce que day dimbali jigéen day soutenir jigéen bëgg naa ko waaw te sa mbokku taalibe la ñu bokk Serigne mhm. Saliou mhm. mu bëgg ma ngir Serigne Saliou ma bëgg ko ngir Serigne Saliou mais teewul tey bi ma waree ànd dëkk parcelle jiite mbooloo mbooloo yi jox ma seen bopp man xam naa ne mbooloo yooyu am na fu ñu objet parce que mënuñu ñàkk bañ a politique il faut ma ànd ak ñoom ci loolu parce que jeunesse bi ci loolu lañ bëgg te man lu nit ñi bëgg ci lay ànd nii la demee askan wi rek laa fi nekkal. man bañ naa la ko ba nee naa la yaay maman national. mais lu tax nga lu tax nga ma kon sawaroo ci yëfu diw. non parce que mais nga nga ah. euh, ndaw ñi képp koo xam ne apprécier nañ nga nga nga nga seen xol bëgg la man kooku dimbali nga ma ci ndaw ñi mais lenn rek laa laa bëggul mooy fitna. Mhm. fitna moom bëgguma ko sama kër gi sa bëgguma ci fitna man boo ma indilee fitna sax damay dama dama lay bàyyi. Mhm. parce nag. Euh, gaynde laa mhm. dawuma loolu mhm. mais dama lay moytu Ousmane nit la ci réew mi la tudd am tur bu sell mhm. bokk ci réew mi objet doon président de la république xëy na nattu moo am nattu bi maa ngi ñaan yàlla sama borom yàlla na ko tekkee mais nag APR la parce que fi mu nekk nii moom APR laa sama xol boo ko ubbee ki nga ciy fekk parce que je t'aime Macky loolu <laughs> loolu boo ñu ko waxul sax xam nañ ko parce que gis nañ sa doxalin gis nañ li nga xam ne moo di sa waxin sa génne sa soxti mhm. dañuy xam ne mais bëgg gi maa ngi def sarax yu muccal Sénégal bëgg Macky tax na maa ngi def loo xam ne Sénégal dina am jàmm Sénégal dina mucc population réew mi dina mucc loolu ñëpp laa ko defal mhm. ki faral Sonko maa ngi mi ngi ci sarax yi ki faral beneen parti mi ngi ci yëpp ñëpp laa bëgg mhm. parce que ñëpp sama ndawi réew la waaye am naa droit am xol di bëgg bu Wally Seck posé woon candidature du ma bëgg président Macky Wally laay sànni sama carte xam na dëgg la xoolal da nga da nga retaan sax da wax waaye sax retaan parce que cox parce ko ah, nëb parce que da nga direct ñëwaat rek ci ba léegi rek ci politique lañ nekk gis nañ ne en fait gis nañ ne en am nga ko àndal di liggéey ak moom ci wàllu parrainage jox nga ko sam boo xam ne yaakaar naa amul kenn ku ko parrainel kenn ci li nga xam ne moo di Sénégal some bi nga joxe yaakaar naa amul lim boo xam ne gis naa ko numéro boobu ci yow ci soxna Aida Saliou muy ñi la topp sa ginnaaw ak sa mouvement euh, ngay ànd ak nag koo xam ne euh, yaakaar naa doomu euh, parcelle la waaye koo xam ne Macky Sall lay liggéeyal ci nguur bi. parrainage ki ma àndal doomu Jurbel la. doomu Jurbel ki ma àndal doomu Jurbel ah, kon ki ma àndal doomu Bawal la. kooku moom moom ñoo bokk ki ma àndal doomu askanu Sénégal la muy Pape Thiam inspecteur impôt et domaine. Ah, day xëy di visiter ndaw ñi. Mhm. Pape Thiam bàyyiwul ki nga xam ne yàlla da ko teg natt mu yor moo sa gains Pape Thiam bàyyiwul ki nga xam ne yàlla da ko teg natt mu yor butéel di gains muy naan Pape Thiam bàyyiwul kii tox Pape Thiam séexluwul ki nga xam ni dafa nekk ci mbedd mi ay bokkam abandonné ko Pape Thiam dina fexe ba wut location teg leen fa ñuy dund di lekk di naan ci bonne condition. Pape Thiam day fekk jigéen ju sonn war a feebar wala ñu war a génne lu yees Pape taxaw ca loola dimbali la te yàlla tax Pape mi ngi ci ndaw ñiy football mu ngi ci ndaw ñiy bëri Pape Thiam mi ngi ci lépp ci social boobu inondation moo ci man Pape Thiam yërëm na ba yërëm ay employé hmm? Pape Thiam nag may def social doon femme développement fii ci parcelle hmm. Pape Thiam recherché ma ba xam ne ma nitu social laa xam sama frère sama frère wan ma Pape Thiam hmm. mais boobaa tey Pape Thiam du xaar ma wax ko si social bi dara di ñu taxawu di ñu dooleel di ñu dimbali mi ngi ci hôpitaux yi mi ngi ci bon de ordonnance yi mi ngi ci jigéen ñi nga xam dañuy nekk ci néeg yi senn yi Pape Thiam mi ngi ci jigéen ñi nga xamante ne ni amaana tey seen i xel dañoo dem wala seen fit dañoo dem Pape Thiam soutenir leen bi ma ko dee Pape koo àndal mu ne ma man amadu Ba laa bëgg fal 2024 ma ne ko heureusement maa ngi parcelle te parcelle tout le temps que damay gis ne Amadou Ba da koy ñàkk mais tey volontaire naa ak képp ku ma àndal engagé wu ci Pape ci Sénégal d'abord win to win ñu ànd fal Amadou Ba 2024. 2024 ci la ñu boolee li ñu am ak mouvement yi ñu àndal yëpp nga xam ne raison de Sénégal. Mhm. partout la international ñu dajale lépp li ñu am kenn ku ne joxe li nga am ñu dajale ko ñu am 73000. parrainage démb la ñu yóbbu suñuy parrainage. 73000 parrainage 73000 parrainage. moom nga la Pape Thiam génne ci wintiwin Sénégal d'abord président Pape Thiam jébbal ko Amadou Ba ci 16 suñu présidence dugg na jot nañu suñu bon de présidence waaye ñun dugal nañu ñun waa Sénégal d'abord winti win ma jël keppaaru Soxna Aïda Saliou partout xëpp ko Pape Thiam Pape Thiam jël waa Diourbel jël waa Mbacké ja waa Guédiawaye waa Golf parti bu nekk ñu am gox bu ku ñu fa nekkal ñu dajale suñuy dém ak suñuy daqaar dajale suñuy présidence wàññi lu toll ne soixante douze treize mille présidence jox ko Pape Thiam jox ko Amadou Ba xanaa ñoo mën ñoo ëpp doole. Mhm. kon réew mi tëdduñu di nelaw de ci réew mi la ñu bokk. Mhm. Pape Thiam ñu fas yéene ànd ak Pape Thiam gunge ko mu fal Amadou Ba 2024. moo gisoon ne gars yi ne nañ Macky Sall dafa juum li nga xam ne mooy euh, Amadou Ba bi mu jiital euh, jiital na ko fal na ko mais da cee tey instant parce que Amadou Ba ndaw ñi bëgguñu ko Sénégal bëgguñu ko. yéen ngeen ñëw da ngeen ànd ak moom. man du ma ko wax xam nga man xam nga man xam nga man lan laay jàppee senegal képp koo xam ne ndaw nga war a defar réew mi du ma la xeebal sa travail waaye gis naa ci Amadou Ba yar gis naa ci Amadou Ba ay teggin. xam nga yar APR dama ne APR. mais xam nga dama ne APR. APR APR laa la wax amul gone. gis nga déglu ma benn mën a Idaale da nga may na micro ma rek. xam nga la may problème a bëgg a. yaru yaru bëgg a ah, sant. yaru yaru yarulum réew damaa Ba mën na yor réew mi keneen ku dul Amadou Ba APR. yow yaa xale bu ñu ci jox réew mi. mère matte nga pour gérer réew mi. yow yaa ne yow man réewu Sénégal mën naa ko yor. idaali Sénégal bu ma ko joxee man ma yor ko. waaw d' accord yow bu ñu ko joxee boo amee ay objet mën a dimbali ndaw ñu ba duñ dee ci gaal. mën a yërëm Sénégal mën nga yor ndir. nangul naa la ko mais xam nga yow ban capacité nga gis keneen ku war a mën a yor. waaw ma capacité xam nga lan nga wax dama la ci tontu yaa ne yaru. avant tout yaru avant tout yaru. attends avant tout respect. yaru avant avant tout dama ni la avant tout respect danga ma teg ma lay waxal ay qualité pareeguñ ci qualité nga bëgg a fël sama gémmañ gis nga man dégg naa daal yi dégg naa daal yaa. mais du man maa ko waxoon ah, askan wi ko wax. askan wi loolu nu wax nag kon déglu ma rek gis askan wi. du man de askan wi man dégguma ñu wax dara man boog soxna Aida Sadio ci réew mi laa dëkk. saa yu ma xëyee jàmbatu askan bi laay dégg waaye boo bëggee dégg dëkk ñun ñoo dëkk parcelle. waaw ànd Amadou Ba nekk parcelle. ñu dëkk fii ci dëkk bi luy dox ci dëkk bi xam naa ko lu arrangé ndaw ñi xam naa ko yàgg génn internet ñaata at ci àdduna waaye dégg naa ne na discipline avant tout respect avant tout réew munoo. mais réew mi dépassé na foofu mais réew yar saa yoo xëy mu am ci ku mu jaar. APR yàq na réew mi déglu naa ne ñun APR baax na. non déglu non baax na ñun bëgg nañ. li may wax dama ne ñun bëgg nañ. xaaral damay wax man dama ne munu ma toogoon. waaw danga may déglu Idaani. acca allez Idaani Sénégal munuñu taxaw Idaani caméra bii nga mën. lii nga jàng lii ngay xëy di ci gor ba ngoon jot nga dem tëri xam nga noo koy laajee nit xam nga ni nga koy travail réew mi nag ki ko maîtriser moo ko mën a xam social ba ma ci laajee tey ma mën la cee génneel lu importance wax la ko tegal la lu leer gis na réew mii may wax ak yow réewum Sénégal dafa am nu ñu yare am nu ñu baaxoo muy avant tout respect avant tout yar déglu ma rek i daani soo amul woon yar doo dugg sama kër su ma amul woon yar doo ma jël mais réew mi yaru amatu fi meer mais danga may déglu non fa ndox daan taa saa yow fekk fa non mais dëkk bi yaru amatu fi léegi non man de man de ñi ma xam man non dañuy waxtaan man ñi ma xam laa waa déglu ma rek dëkk bi mënuma localiser ñëpp ne ni ma mel la ñuy mel mënuma lo yabeewu ma Sénégal yab bu toll may taxaw di wax ne Sénégal non non non non non il faut nga respecter il faut nga respecter fi ngay waxee parce que tey bu idaane boo jàkkaarloo ma ne ma Sénégal yar amatu fi man bàyyi wu ma te man doomi Sénégal. non boo déggee may wax maanaam. non non yow kon da nga bëgg a wax ne yow yaroo bu ma dugal xaaral wax ne yaroo. non déglu daa di fayal say caméra. xaaral daf may wax mooy. xaaral fayal say caméra non bu ma bu ma dugal foo xam non fayal say caméra yow yaa ne ndaw ñi kenn yarootul. boo déggee may wax ndaw ñi moo tax may wax. mais ndaw ñi ku ci Amadou Ba Amadou Ba nga wax noonu. mais léegi loo xam nga ne da nga bëgg a wax Amadou Ba yaroo. non déglu waxuma loolu. nan nga bëgg a wax non déglul. mais kat boo yaruwul. damay la nda yar yar yorulum réew da nga ne Amadou Ba nga àndal. mais réew mën na am saa yar. xaaral waxuma loolu. idaani déglu déglu nga li nga wax. waxuma déglu nga ne réew réew. <laughs> yow xaalis yow mënoo ma maanaam. yow da nga ne. yow tey bëgg Macky Sall bu mu la taxa ñëw topp koo xam ne. man bëgguma Macky eh bëgg naa Macky waaye xam nga lan laa bëgg sama réew. ah dëgg dëgg eh soxna de Saliou réewam la bëgg ndawi réewam la bëgg. mais luy porter Sénégal dara laa bëgg. léegi léegi léegi euh, ki nga xam ne moo di Amadou Ba. waaw la fi teg loo xam ne yow gàpp nga ne kii mën naa doxal Sénégal pour lu may premier ministre. yaru moo tax Macky Sall jiital ko. yaru toog yow kan nga xam keneen ku am objet. Euh, déjà. li ma Ousmane Sonko. waaw ak même tuuti rek Ousmane Sonko. li mu convaincre ndaw ñi teg ci taabal bi. lan la lan non mais message bi ma budget bi da may tegal da nga may tegal rapport bi nga wax ma lan la rapport bi bi mooy. waaw bi mu génnee li mu nga xam ne bilan bu mu tegal Sénégal Sénégal xool ko ñoom ay yow ay nit xa ndaw ndaw nga xam ne moo réew. ndaw ñëpp xam ne Ousmane Sonko bid bilan bilan bi ñu leen tegal mooy bilan bu baax ci Sénégal bilan boo xam ne mooy changé xarkanam Sénégal ëllëg. ndaw ñu ne kii lañ soxla. lan la mais bilan bi mu def am ah, nga ko. non xaw ma ko mënu ma cee mënu ma ko lire. non mooy bilan boo xam ne pour. xam ne seetaanu ma benn bilan. man déglu ma benn bilan. parce que parce que koo àndoon àndoon moom moo tax. non barke Serigne Saliou. non dañu waxtaan rek li ci doo bëri na ko nangu barke Serigne Saliou. lëkk non Idaly Idaly da nga may déglu Idaly. lëkk lekk làmmiñ du lekk moromam. dama ne lëkk dama ne lëkk lu ko bañ daw bañ bañ bañ bañ. waxal ko gudd nopp ak mën a daw. waaye yow tamit loo bañ bañ Macky Sall. mi nga xam ne réseau bi da nga may déglu rek mais da nga may déglu da nga may déglu da nga may déglu. Idaly man nekkuma nekkuma ak yow ak conférence de presse. man dama nekk ak yow ci interview interview bi dama la bàyyi loo xam ne mais may déglu non waxuma ma intéressé parce que danga ma dama bëgg question bi ñu tënk ko ok ci loo xam ne dafay neex ñu koy seetaan quoi parce que wax ji bëri na bruit non pourtant xam nga daal non non dafa bëri bruit xam nga tam bëri bruit man dama bëgg may laaj borom xel yi may seetaan ak kilifa yi toog di ma seetaan mais du nga wax lu neex non non waxuma lu ma neex danga ma questionné rek nekkuñu débat politique non nekkuñu débat politique ma sotti man démb laa jébbal samay parrainage. Mhm. bis bu ma toogee débat dina dinañu xam ne. te dégg naa yaa ngi waaj a waaj wane conférence de bu mag. da fit nag. non du question am fit Sénégal mënoo ko demal ànd ak ñi nga àndal ba tollu fit a fit àndoog moom parce que fi laa dëkk fi laa amee bulletin de naissance li may portel Sénégal mooy sama njabootu réew. ku ma mënti àndal te jariñoo réew mi dara wala jariñoo njabootu réew mi dara man soxna Aïda Saliou boo ma gëstoo doo ma siin mhm. ok li ma am man ci objet ak li ma fi liggéey gis gisaguma man benn homme politique boo xam mën ka ma raw ci Sénégal tollu woon naa ci woote euh, posé u candidature. Mhm. man Soxna Aïda Saliou parce que Idaane ñaata vidéo nga ma jël non ñaata vidéo nga ma jël. yaakaar naa bëri na. yoo xam ne man li ma fi porté am nañu posé wu candidature te porté wu ko Sénégal la ko. nangul naa li ma def ci inondation Sénégal. nangul naa la def ko ci social. am nañu posé candidat dimbali ko am nañu posé candidat te defuñu loolu. nangul naa la ko ñuy jigéen li ma topp man ci mbooloo am nañu ko dim lu ma def. te defuñu ko nangul naa la ko ba léegi te encore. parce que lépp mais gis nga Idaani réewum Sénégal li ko nar a yàq. Mhm. mooy lii ñuy féewale xol yi gis nga bu dee Macky Sall la ak Sonko amuñu problème. mais dafa am ku ma ndey ak ku ma am ndey ku ma. non danga may déglu rek man loolu yegguma ci daal parce que egguma foofu man fi ma yegg mooy objet bii ma am. ok 2024. Mhm. fas yéene engagé wu. Mhm. ànd ak ñi may àndal. Mhm. ñi may àndal seen objet. ak seen fi ñu visé seen bët. man xam naa ne lépp luy jariñ Sénégal la bu munta jariñ Sénégal. man soxna Aïda Saliou. dina ñu xam ne ànduma kenn ci luy nax Sénégal. parce que bu mu naqee Sénégal ci man lay metti bu Sénégalais yi jooyee. maa ngi war a nax bi on est d' accord macha allah euh, gis nañ daal soxna Aïda Saliou instant la grande voyante maman nationale dugg na ci li nga xam ne moo di politique. naam mu ngi def liggéeyam mais moment bi instant yi Euh, objet mi ngi jooyal ay ndaw réewam jooyal ay ndaw réewam comme ni ma xeexal ndaw réewam démb moom lay xeexal ndaw réewam parce que tey bu nga xeexal ndaw réew def foog nga dugg ci politique doole bi war a xeex doole bi nga xam ne moo egg si tey man fi sama social egg mhm. il faut que ma am lu ma ko mën a xeexee mhm. ak fi ma ko mën a jooyee mhm. pour ñu mën a gestu ndaw mi parce que tey am na foo xam ba ma fa jooyee ba bëgg fa yegg ci xale yi nga xam ne Ah, ñu ngi a ñu leen di ñu génne leen seen kër yi mm-hmm. amuñu fun tëdd mm-hmm. awma droit mm-hmm. jël benn xale engagé ko ci sama biir kër lu nombre li ma bëgg te awma dara ci état awma dara ci nguur li ma mën a toll tey état moom ma mën a soutenir jàppale ma mais état ci li may jàppale mooy ci lu jëmee ndaw ñi kanam ak lu defar suñu réew ba sunu doom yi dootuñu dee ci gaal suñu doom yi dootuñu leen tëj ci lu ñu xamul suñu doom yi dootuñu jaaxle nekk ci mbedd ndakaaru yi di traîner di dem réewum jàmbur ñu leen di tottur bi loolu moo tax bon fi may ñëwee te Pape Thiam waaw Sénégal d'abord winti winti moom mi ngi ci Amadou Ba te li may jooy moom lay jooy te bu nu àndee ba ci kanamu Amadou Ba 2024 ñun li ñuy jooy dina faju ñu ko xam bëriwul Pape Thiam ko di mooy. Euh, waaw yow doo ko xam parce que yow lii nga maîtriser. même tuuti rek ma bu doon na tey da ngay wër ci mbedd mi di def social. wala ngay dimbali non dafa ndànk dafa ndànk da dugg fa garaaw. Pape Thiam doomu baawal la Pape Thiam nekk ci mbedd non déglu ma ma wax la Pape Thiam man Modou Gueye laa xam doomu Bawol. Modou Gueye Diourbel waaw moom nga bëgg a xam. ah ñëpp xam nañu parce que moom nga bëgg a xam. non ñëpp la non moom nga bëgg a xam. xaw ma ko laa su ma la présenté Pape Thiam. wala nga dugg ci plateforme yi. plateforme nga xool di nga xam Pape Thiam. waaw moo tax ma la tëjagul fenn voilà moo tax ma la tëjagul non yow Idaali. ba la ñuy génne yow Idaali dama la bëgg a xamal leen yow yow dama la bëgg a xamal. Pape Thiam jàmbaar la dama la bëgg a xamal mais xamaguñ ko laa la wax. dama la bëgg a xamal leen ñi bëgg a xam Pape Thiam xam nañ Pape Thiam. maanaam mi parce que ndaw la man mi nekk ci social yow socialo ndax yow dañ lay social <laughs> yow kuy laaj social nga néew di doole nga famille Doucouré nga bokk da ngay laaj social moo tax doo xam Pape man ñi Pape di jox ma lay jox social xam naa ah, yaa ma jox moom dëgg la mais fi ma waxee mooy macha allah Pape Thiam euh, gaynde la mu ngi liggéey mais euh, senegal Pape liggéeyam dafa nekk ci néew gi doole yi di leen dimbali à diin personnalité. ok nga xam ne ñoo fësal dimbal man mi fësal social. foofu laa foofu laa waxee dañu tëjee foofu politique foofu laa waxee Pape Thiam macha allah yéen ki yàlla jàppale. dañ la yónni li ngeen bëgg ci Sénégal incha allah ngeen a teeral. ku ma uh, ñu dem bëgg mooy Pape Thiam. tey dina mel ni yow doo faramaareen tey. ngeen am nga ñëwee dafa am gaynde parcelle dafa am ko ci dugg te bokk ci woon. ñàkk tànk dafa rax tiir ndax je suis là. la lion de Amadou Ba. la lion de Amadou Ba. soxna Aida Saliou jàmbaari Serigne Saliou ji. mooy yaayi Wally mooy attaque te moo dëkk Parcelles. la woon wóni na il fait attention. mais jël nga engagement nag. xam nga na jël nga engagement nag. ok ok yi la ci yàlla di jàppale macha allah yéen seen liggéey avancé ngeen defar Sénégal dimbali ndaw. ok mais bu ma ñëwee mooy tuuti rek social bi euh, gis nañu en fait ci kaw. ci social ngay dox ci ngay nelaw ci ngay nañ ci ko xam ne social am dañ ko génne Euh, këram euh, essanaan ni UG génn ko mu nekk ay jafe-jafe ñu fekk fii ngay wax ak moom comme boo nee social nga nekk dañ koy gëm fi ñu jàlle mooy euh, di wax ne macha allah ku nekk xam na ne lépp loo am lépp la askan bi jox man xam naa la sama yaay nga teewul ma wax la dëgg parce que li émission la du pour man askan wi la xam na ne lu la yàlla jox loo liggéey jox nga ko jàmm yàlla yi. lu ma waale joxe ba jox ko jaamu yàlla moom laa la wax. su ma tëlee fëgg waale wala ma fëgg waaw macha allah. Pape Thiam ok léegi maman. Pape Thiam mooy tax ñànkata ngi am soos faaw nu tudd ko. ok moo tax ñu jaaxlee tunu. di daani sama waay la. jàmm ñal jaara busut wala man sa bi jaara.